asalaamaaleykum mbokk yi ñu la chaîne du moment la chaîne des leaders tey nag Mindiss nay leer seen émission bu wóor moom moo ñëwoon ànd ak yéen ci campagne yi ñu ñëwoon seet si ki nga xamante ni mooy monsieur Amar Diouf ñu daal di koy bàyyi mu nuyoo ak yéen. Euh, asalaamaaleykum mbokki Fatick asalaamaaleykum mbokki Mindiss TV euh, maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen gërëm di leen sant di leen remercier également déplacement bi ngeen def ñëw seet si moo ci biir campagne bi. waaw monsieur Diouf comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp euh, campagne bi commencé na yàgg préparation yi yàggoon na et tout bëggoon nañ xam nag instant yi lan moo tax sa candidature jotoo ko maintenir. Euh, waaw je crois que tout le monde a suivi euh, les péripéties parce que li ci xew ñu xam nañ ko j'étais candidat donc su la bannière de defar sa gox malheureusement donc ma candidature a a été invalidée pour cause de parité parce que on m'a Euh, dama aligné euh, ñaari jigéen à la place de góor ak jigéen sur la liste proportionnelle suppléant euh, yàlla def ma def recours au niveau de la cour d'appel de Kaolack le premier juge de la cour d'appel ak confirmé la décision du préfet de Fatick ñun aussi toppuñ ko parce que mun nañ demaat cour suprême mais dañ ne lu yàlla dogal kenn mënu ci dara ba tax na nangu nañ dogal yàlla mais l'ambition reste entière parce que aussi ñun nous sommes des Fatickois fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee maanaam lu ñu bëggoon def ci Fatick su fekkente ne mënuñ kaa def parce que euh, këyit yi permettre ko yaakaar naa ne war nañ ko mën def aussi ci beneen fànn ndax yëf yi sotti ci ak def ci la loolu mooy mbir mi. Euh, léegi yow euh, loolu moo tax nga rejoindre mouvance présidentielle bi wala. loolu aussi mën naa ne taxul loolu taxul mu rejoindre mais mois je suis un acteur politique majeur à Fatick je suis déjà conseil municipal je suis conseiller la présidence la République. Donc j'ai un parcours dans le parti La Paire, je fais partie des membres fondateurs, je fais partie de ces premiers commissaires du parti qui ont installé La Paire à travers le pays et le monde. Donc Mounouma toog croiser les bras par rapport à une élection aussi cruciale mel ni élection euh, locale il faut ma participer ci élection yi ma famille naturelle c'est La Paire ma coalition naturelle c'est Benno Bokk Yaakaar donc je ne peux pas comme je l'ai dit la fois bi ñuy monter comité électoral communal bi mënuma far feneen man mënuma jàppale une coalition de l'opposition c'est pas mon genre c'est pas mon style et cela ne me ressemble pas je ne dois pas le faire ma conviction est que à partir du moment où ma candidature a été invalidée et que je ne peux pas rester bouche bée sur la question électorale je dois choisir ou bien je dois retourner dans ma famille naturelle heureusement que le chef de mon parti mon patron politique Euh, le président Macky Sall est venu à Fatick sous l'impulsion du maire Matarba donc euh, ma dem waxtaan ak moom sur des questions qui nous concernent des questions politiques et des questions qui concernent Fatick donc après discussion le président nous a dit clairement que Amath compte tenu de la situation ton devoir c'est de retourner dans ta famille naturelle et j'ai accepté ça parce que ñoo bokkoon li wax donc ma ci remercier également monsieur pour entre gens yi mu ci def pour que loolu am di ci remercier également ñi nga xam ne ñoo ko wër di liggéey ak moom ah mu ko ci mel ni ñoom Khady Thiam Seck ñoom Pape Massène Gueye ñoom Badara Ndiaye ñoom El Hadji Souleymane Diouf qui est aujourd'hui le coordinateur du comité électoral ñoom euh, Mountaga Baro son chef de cabinet entre autres personnes yi nga xam ne dox nañ ci wax nañ ci donc ñoom ñëpp ma kenn ñëpp maa leen ci remercier di leen ci gërëm parce que aussi loolu mooy mooy mooy àdduna ñëpp benn lañu donc loolu moo tax ma décidé jël engagement ferme au sortir de cette audience que je m'engage à soutenir bec et ongle la coalition Benno Bokk Yaakaar et ça je l'ai dit et moi quand je dis je fais donc ci loolu laa nekk te maa ngi ciy dox di ci wax et je ferai de mon mieux pour que tous nos amis qui étaient dans d'autres coalitions gannaaw bi nga xam ne suñ candidature dañ ko invalidé dañu demoon bokk feneen ñoom ñëpp on va les ramener pour que véritablement ñëpp jàppale la coalition Benno Bokk Yaakaar pour que au soir du 23 janvier ñu mën a am une victoire éclatante a Fatick. Euh, da ne bi nga amee audience ak euh, président bi ngeen waxtaanee ci affaire Fatick si finalement si nga décidé que ne di nga di nga delluwaat si nga xamante ne mooy sa sa sa parti sa kër comme ni nga ko waxee d Bokk Yaakaar mais bu ñu gisee euh, événement yi jot a passé gis nañ ci say déclaration que ne da nga ne woon quel que soit alpha quelle soit la situation da ngay nekk candidat te tey jii nii ki nga xamante ne mooy maire Fatick gis nañ que ne da nga ko pointe du doigt vous avez vous-même dit dans vos propos que ne tant qu'il maire de Fatick Fatick n'ira pas bien Fatick ne va pas avancer donc boo boo retourné ne da ngay tourné waat dem ànd ak kooku noonu est-ce que du nekk du andi benn xel ñaar contradiction tey jii ñi nga xamante nii dañoo gëm sa kàddu tax ñu ànd ak yow di la jàppale est-ce que loolu noonu lu tax ñu ñu xaw a ragal wala ñu ñu tourner la le dos wala ñu ne kii xëy na gëmul li mu doon wax wala gëmul boppam wala affaire yooyu noonu est-ce que du andi contradiction wala benn. Euh, très bonne question man je vous le dis et je vous le répète tout ce que j'ai dit pendant que j'étais candidat pour prendre la place de Matar Ba la l'assume parce que boo buggee toog ci chaise bële fekk bokkar moo ci toog di noo def ba boo Bocar jóge fa nga toog fa donc man tout ce que j'ai dit pendant que j'étais candidat pour remplacer Matar Ba je l'assume avec fermeté donc du ma wax tey su ma wax leneen mais à partir du moment où ba may wax naan je serai candidat de force ou de gré <coughs> boobu il fallait intégrer aussi la dimension de Dieu parce que si Dieu a dit que mënoo nekk candidat parce que say këyit gars yi nanguwuñ ko ndax respecté au parité bi sur la liste proportionnelle suppléant mënuma forcer l' administration bu nekk candidat mais dem naa ci ba sës parce que dem naa ba def recours cour d' am ñoo xam ne on les a dit que du ngeen nekk candidat ñu dem ñibbi moi j'ai fait de Kaolack suivre naa ko topp naa ko ba mu sës mais yàlla moo dogal mënuma cee bokk leen nag bi loolu amee foog ma bokk ci dara wax naa ko léegi acteur politique du def chaise vide moo tax ma ne. damay choisir la coalition bi nga xam ne mooy sama coalition naturelle gannaaw bi nga xam ne Matar Ba ak chef de l'État wax nañu ak man sur la question donc man nag wax naa la ko waxaat la ko APR laa bokk je suis un militant confirmé de l'APR je suis de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais am naa droit am ambition ci dëkk bi looloo taxoon ma génn dem defi leneen maintenant fekkente ne sama ambition bi dafa am lu ko freiné provisoirement, je suis obligé de retourner à la case de départ. Et la case de départ, c'est la coalition Benno Bokoyakar, derrière la maire ba dans la commune, et derrière le ministre d'État Chakanté, dans le département. ci loolu laa nekk tey ki loolu laa nekk ëllëg parce que li ma wax ak président duma ko teggi di def leneen li ma wax ak Matar Ba du ko teggi di def leneen li ma wax ak ministre d'État Cheikh Kanté ko teggi def leneen donc maa ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar te képp ku ma xam képp ku ma jege képp ku ànd ak man di nga votel Matar Ba dans la commune di nga votel Cheikh kante dans le département loolu moo fi nekk. comme eh, léegi yaa ngi lancé un appel pour que ñu votel Matar Ba pour comme ni nga waxee woon que ne dafay ñibbi Jula Sèm léegi Fatick lay toog ngeen bokk Fatick gérer Fatick. Euh, bonne question xam nga Jula xam xam nga vraiment euh, yow da ngaa bëri histoire euh, déjà da nga bëri histoire. non man say wax rek laay teg si table bi yow da nga même rek yow da nga bëri histoire te yaa ngi may tooñ da nga ñëw ba suñu kër attaqué wu ma la si. te boo ma attaqué rek dinaa riposté. non oui ma dañuy waxtaan rek waaw dañuy waxtaan rek waaw. man su ma neexee ma wax lu ma neex dans la période électorale mais Matar ba Ndiéla Sèye Amath Mba Faye euh, El Hadj yooyu yëpp wax la rek ay wax la il faut considérer sa comme ay waxtaan ak ay wax loolu quoi mais bon. qui reste à l'IRACM ou bien qui reste à Fatik, l'important c'est de voter pour la coalition Bernard Bokyakar. Il faudra maintenant, puisque Amat n'est plus candidat, ces discours de l'IRACM, ces discours de, de, de, de Yoyunonou, il faut qu'on les arrête et qu'on reste dans l'essentiel. L'essentiel c'est quoi L'essentiel c'est de voter pour le candidat du président. Tout le reste c'est du vent. Il faut voter pour le candidat du président. Et le candidat du président, je le département, il s'appelle Cheikh Kanté. Toute ne nous concerne pas ne nous lie pas nekkuñ ci loolu li ñuy def kay mooy képp ku ñu xam nga nekk feneen dañuy dem jëli la nga bokk ci li ñu nekk loolu mooy liggéey bi. foofu laa doon ñëw sax pour laajte la nan nga fas yéene accompagner seen candidat si campagne bon loolu c'est assez claire parce que nous nous sommes déjà ancrés dans la commune dans tous les quartiers. nous allons mobiliser l'ensemble de nos militants journellement et ça va commencer dès des demain, nous allons commencer les fortes mobilisations par rapport à nos différents militants dans les différents quartiers de Fatick fépp dañ fa dem wax ñoom discuter ak ñoom sens gën leen sensibiliser déjà sax ñoom lépp lu ñu nekk ñoom ñoo nga ci déjà ñoom bu ñu xamee ne Amath rejoindre na la grande coalition ñoom ñëpp ils ont rejoindre ils ont rejoint tacitement la grande coalition et puis loolu moo fi nekk parce que ñooñu suñu relation ak ñoom c'est pas des relations de responsables et de militants moo tax lépp ñun lu ñu nekk ñoom dañu ciy nekk tacitement ba tax na nañ ko commencé dox à travers des visites de proximité à partir de demain dinañu commencé dox également euh, ñu def euh, ay euh, rencontres nocturnes yoo xam ne ça nous concerne pour régler les vraies questions maanaam ñi nga xam ne dañoo nekk ay kilifa te bokk ci yeneen coalition yi ñu mën a xool nu ñu leen jël leen andi leen ci la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi nañ def ay organisation d'envergure yoo xam ne comme les 14 déjà je vous invite les 14 les 14 fii ci kër gi on a une grande manifestation politique une animation culturelle boo xam ne on a on va en profiter pour lancer euh, des appels forts à l'ensemble des gens qui sont éparpillés pour que ñu mën a rejoindre la grande coalition et puis euh, notre ami euh, El Hadj Souleymane Diouf aujourd'hui le coordinateur euh, communal moom euh, c'est le parrain de cette manifestation nous invitons également Bamba Sarr qui est le coordonnateur du comité électoral de Pelgue qui est l'invité d'honneur de cette manifestation donc kon ñu nga xam ne euh, ñu ngi ci liggéey bi euh, commencé nañ ko avec sincérité on va le terminer avec sincérité parce que on s'est engagé nous sommes dans l'obligation de respecter notre engagement pour que véritablement au soir du 23 janvier que la joie puisse être contagieuse partout à Fatick et dans ginnaaw loolu man appel ngay lancé non seulement jeunes yi candidats yi tout. appel bi may lancer mooy il euh, y a certains candidats qui sont de l'APR euh, je leur demande euh, de revoir leur comportement parce que aussi politique la dafay jeex c'est dans 15 jours donc nit ñi nañu xool li ñuy wax ak nit ñi li ñuy jëflante ak nit ñi parce que nous avons des relations du yàgg ak ñoom kon na rafet politique du xuloo du xeex du waxante lu ñaaw politique xam dajaloo xalaat réfléchir ut suñuy pexe ba xool nu ñuy defaree dëkk bi mais nekkuñ fi pour waxante lu ñaaw nekkuñ fi pour xeex nekkuñ fi pour def violence donc je lance un appel à l'ensemble des candidats d'éviter au au maximum la violence durant cette campagne électorale parce que nous sommes tous de fatigue et pour la plupart des candidats nous sommes de la paire Donc nous sommes une famille, restons en famille, faisons la campagne dans la paix, dans la sincérité, avec des discours vraiment qui rassurent et évitons la violence autant que faire se peut. Maintenant, je lance un appel à mes amis yi nekk ci la coalition And Nawlé. Pour la plupart, ce sont mes amis à titre individuel. Je leur lance un appel que c'est pas trop tard, il faut venir rejoindre la famille marron beige parce que c'est ça votre coalition. la vraie coalition des gens qui sont dans la coalition Annolé, c'est la coalition Benno Bokoyakar. Je lance un appel à tous ces gens-là. Ils me regardent, ils me reconnaîtront, ils se reconnaîtront. Ils savent pertinemment que nous l'avons c'est une partie. mooy APR seen coalition mooy Benno Bokk Yaakaar ñëw leen c'est pas encore trop tard de la grande coalition et je crois que loolu dégg ngeen ko te xam ngeen ko te xam ñi may waxal ñan la donc maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. ñu ñëw tuuti ci ci ci kan bi nga wax ñu lan mooy sa xalaat si si kan bi nag gisee suñu suñu lion yi ndax. pare bon suñu lion yi nag ni ma ko gisee nii moom dalagul sama xel man. <laughs> man j'étais man nag j'étais un ancien footballeur j'ai joué à l'AC Pastef en tant que numéro 9 nous sommes en 1998 j'étais le numéro 9 de l'AC Pastef donc li ma xam mooy affaire bi doxagul. peut-être euh, la machine n'est pas encore huilée wala peut-être su ñi nga xam ne ñoo leen tàmm di gis suñu football mooy suñu titulaire yi ak seen euh, position bi ñu am ci corona bi peut-être moo tax gisaguñ la vraie équipe de Aliou Cissé mais en réalité euh, le premier match ras amuñu lu ñu rassuré ci pré-match bi donc par extraordinaire la ñu gagné à travers un penalty donc nous demandons aux Sénégalais à Aliou Cissé de nous présenter un jeu boo xam ne dañ di mën a xool xam ne vraiment équipe bi am nañ ci yaakaar mais pour le moment cette équipe là waneegul lenn loo xam ne problème de classement voilà waneegul lenn loo xam ne am nañ yaakaar ne war nañ ma jël coupe bi mm-hmm. mais en tas de cause ñu ngi leen ñaanal ñi feebaroon wër ñëwaat ci terrain bi ba yàlla may ñu am ndam Euh, donc au soir du 6 février je crois que mun naa nekk parce que le Sénégal c'est une nation de foot la preuve depuis plusieurs années donc euh, au sommet de l'Afrique ñun ñooy nekk premier depuis plusieurs années d'affilée kon am nañu yaakaar ne coupe bi war nañ ko mën jël parce que individuellement pris c'est de grands footballeurs dans le club et c'est des titulaires en Europe donc ñooñu mën nañu football xam nañu football li leen président wax rek laa leen wax parce que maa nga foon toog li leen koy président di wax maa li mu wax leer na soxlawuñu dem nañ final parce que loolu doy na li soxla mooy qu'il nous revienne avec la coupe et su boobaa nous pourrons jubiler et je vous y invite euh, donc bientôt incha allah la bu élection jeexee ñun ñëpp on va aller la CAN au Cameroun incha allah pour assister à la finale. merci beaucoup ñu ngi lay remercier euh, très chers internautes ñu ngi leen di di leen jox rendez-vous prochainement si beneen numéro Mindiss Nay Leer merci beaucoup.